mosu fi def report élection présidentielle te gisuma lu xew ci réew lu war a justifier ñu war a reporter élection présidentielle gisuma ko mais maintenant li ñuy demandé te loolu laa yàgg demandé mooy inclusivité ci élection bi mooy ñu garantiral ñu transparence ci scrutin mais ñun ñëpp xam nañ ni transparence bi déjà boo jëlee ci parrainage bi contrôle parrainage bi ak yeneen ak yeneen am na yu bëree bëri yoo xam ne ay rëq-rëq ñu respecter le calendrier républicain parce que nag sénégalais yi sonn nañu ci politique politicienne sénégalais yi dama bëgg ñu abréger seen souffrance yi nga xam ne ci la ñu nekk mënuñu nekk di souffrir di souffrir di souffrir pendant douze ans régime boo xam ne euh, sénégalais yi gisuñu ci seen bopp ñu continuer naan ne ñu poussaat élection yi ñoo ñu continuer toogaat fi di gën a sonal sénégalais yi non sénégalais yi ñoom pare nañu le vingt cinq ñu génn dem voter